passé tey euh, ñu doon euh, jébbal kii di président de la république euh, wala samedi sax ñu doon jébbal kii di président de la république les conclusions du dialogue alors ban analyse déjà ngay def ci dialogue bi nag nga ko dindee yow mi fa nekkoon. waaw d'abord rafetlu li nga xam ni président est resté constant président a toujours voulu gouverner dans la concertation dans le dialogue c'est c'est c'est un libéral et le libéralisme est par essence est par essence Euh, échange euh, discussion compétition e moom depuis mu ñëwee ci nguur gi gis nañ ni le dialogue est permanent dem na ba jël une journée au mois de mai le 28 mai def ko journée nationale du dialogue mm-hmm. donc loolu la perpétuer cette fois-ci en raison des fêtes euh, catholiques mu yóbbu ko le 31 mai et cette fois-ci mu jël les leçons du passé confiné dialogue bi ne avant fin juin bëgg naa am les conclusions ñu rafetlu aujourd'hui plus de huit commissions ñu liggéey dans tous les domaines parce que nit ñi dialogue politique rek la jàpp. Mm-hmm. mais domaine yu nga xam ne yépp mu ngi dans de la vie de la nation président waxoon na nañ ci waxtaanee mu nekk presque la continuation du dialogue de 2018 2019 2019. te loolu lu am importance la dama jàpp ni aujourd'hui tey li am solo et pour la première fois. Mm-hmm. ñu dans un délai relativement court trois semaines commission yépp liggéey ñépp am seen rapport ci kilifteefu coordination président Moustapha Niass ñu ñëw jébbal président rapport yi nga xam ne ñëpp a nangu lu nekk ci rapport bi engagé na ñëpp. donc à l'unanimité à l'unanimité ñi ndax c'est vrai nag rapport yi boo waxuma lépp la ñu d'accord mhm. am na ay points d'accord am na point de désaccord am na ay points de désaccord am na ay points yoo xam ne war nañu ko sob topp mais au moins pour la première fois sur un rapport sur des un rapport sur huit commissions yi ak la commission de synthèse ñëpp ne d'accord nañ ci amul benn objection ci li ñu bind moo ñu engagé ñun ñëpp et loolu na mu nekk une victoire du Sénégal lii di am fii am fii ci Sénégal ñi di waxtaan ba am ay rapport joxe ko président rappelé na ko ci loolu yeneen réew mhm. ay yeneen étranger ñoo ñëw di leen dimbali yéen a ngi fàttaliku fi ay li ñu doon wax ay NDA yi parfois ay Nations Unies parfois yeneen organisme ou ay yenn ONG internationale dugg ci pour jubalee nit ñu nekk ñu bokk même réew Sénégal fii kenn raxuñu ñun ñoo toog force politique différente force économique différente patronat mhm. syndicat société civile ñëpp ay sénégalais taw waxtaanee mbirum Sénégal ci domaine yëpp jeunesse sport culture économie environnement cadre de vie politique yëpp ñu waxtaanee ko tënku ci benn document bu nga président Moussa Niass tey la ko jëbal président de alors dafa amoon loolu nag mu nekk fierté pour le Sénégal. il y a eu une fierté certes euh, ci yenn point euh, d' am ci dialogue bi mais d' une autre part euh, peut-être bi yoon président dafa bàyyi Ndiou Ndiaye comme ni mu ko waxee woon dialogue bi passé ñu gis ne que a une bonne partie quand même de l' opposition yoo xamante ne amoon nañ seen kàddu à dire présent ñu woon ci dialogue bi nii loolu tamit ban analyse lañ ciy def parce que à à huit mois de huit mois des élections ils se sont posés. cette question pourquoi le président de la République a senti le besoin de dialoguer. mais nee na d' abord yow da nga bëgg limiter dialogue bi c' est simplement politique. non mais parce que nga ko bëgg limiter. dialogue bi wax naa la ko fàttali na ne neuf huit commissions ba une autre neuvième mu nekk commission. synthèse. mais vous êtes d'accord avec moi environnement mais vous êtes d'accord avec moi que. y a eu énormément de commissions mais tey lu tenir en haleine. Euh, oui aujourd'hui mais c'est euh, le Sénégal qui comme ça c'est profondément attaché à la politique mais dama bëgg foofu boo xoolee presque inclusion totale économie li ma ko fàttali sànq sport culture jeunesse cadre de vie environnement yëpp pétrole bi yëpp ñu waxtaane ko loolu quand même c'est une très grande très très belle initiative ah et li am ni mosuma ko gis ci Sénégal président de la bu toog ñëpp def conclusion dialogue bi ne ko document bi dak jébbal nañ ko ñun ñi ñoo d'accord ci lii. dialogue nag li président li mën mooy oote dialogue oote invitation ñëpp euh, ki kuy wuy ak ku dul wuy ku a sa liberté nous sommes aussi dans un état de droit. Mm. doo forcer kenn nga ne ko kaay wuy gis mm. ñoom ñoo décidé ñu nekk des partis souverains ñu ne ñoom demuñu dialogue mais gis nañ tey que ñu demutoon. tey am nañu échec ñoom seen bopp parce que li ñu doon xalaat ah ñu ñëwutoon c' est mm. une honte pour parce que dañu dañu newoon dialogue bi du jur dara par exemple ñoom bu fekkee ni li ñuy wax dialogue politique bi dañu doon wax dañu doon wax gaa ñi ah Khalifa dem nga wuy ji PDS dem nga wuy ji am na ay parti yu bëri yu nga xam ne dañ leen di ooyee na aligné dem nañ wuy ji réew mi dem nga wuy ji ah yéen yéen a ngi dem mais gaa yi leen di nax du ngeen fa am dara lu nga mais boo xoolee tey mm-hmm. mais tey bu fekkee man ci commission boobu laa bokkoon commission boobu laa bokkoon discussion yu profonde euh, d' abord discussion ci d' ci président bi parce que président la bi imposé wul dara. dafa ne nañu waxtaan mais wax ne nañu waxtaan ñu am ku leen jiitale parce que am na ñu fa jiite woon opposition bi récusé président ne na opposition bi proposé. proposition sax mujjul am ba nit ñi d' accord ñun ñëpp force yëpp d' accord opposition moo proposé ak ne loolu na la ne ki fi nekk muy directeur général des élections di Thiendella Fall. ma koy ma koy ma koy félicité di ko. mais mais est ce que l' opposition qui n' ci liggéey mu def nee nañ ko d' nañ ko def ñun pôle majorité ñu ne lépp lu ngeen d' accord kuy président ñun d' accord nañ ci. Mais, mais, monsieur le ministre, est-ce que vous n'êtes pas d'accord aujourd'hui que l'opposition a d'après ñoom li ñu ko tuddee toujours. ban opposition ngay wax. l' opposition qui n'a pas répondu. qui n'a pas répondu qui n'a pas répondu parce que boo <laughs> opposition. non mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas dire nu ma ko nu ma ko bindee dans ma tête mais c'est l'opposition qui n'a pas ah, euh, euh, euh, qui n'a pas répondu à la main tendue du président de la République. c'est ça une bonne partie une bonne partie de l'opposition donc ñooñu dañoo yàgg wax ne que duñu dem parce que deal la ñu jàppee dialogue bi ne que deal bi c'est quoi c'est juste pour permettre aux candidats Karim Meïssa Wade ak Khalifa Ababacar Sall ñu bokk ci élection mu nekk monnaie d'échange pour que président de la République aussi mën a bokk ci élection donc à la fin on se retrouve que effectivement ñii bokk nañ donc est-ce qu'ils n'ont pas quelque part raison nañu cohérent ñoom bu ñu créé Yewwi Yewwi Askan Wi boo xoolee euh, le mémorandum bu conduire à Yewwi askan bi xam nga leen jàpp dañoo ne ñoom bu ñu ñëwee lu ñuy njëkk def mooy que Karim Wade mhm. ak ak Khalifa Sall ñoo trouvé tout leur droit donc c'était leur xanaa kon c'était pas sincère ah, il faut il ñoom loolu moo nekkoon seen combat ñu ne dañoo bëgg Khalifa Sall retrouver leur ses droits mhm. léegi ñu ñëw ne leen kaay leen ñu waxtaanee lépp président dem na ba fixé wul ordre du jour fixé wu terme de référence yi moom boobu bi ko gars yi yenn parti ne balaa ñoo wax nañ wax terme de référence dafa leen ne kaay leen ñu fixé ndoo terme de référence yi ñun ñu nga xam ne ñun la mandaté ñu représenter le pôle de la majorité au dialogue politique def ñu ne leen discuter de tout ce qu'ils veulent ne rejeter aucun point discuter de tout ce qu'ils veulent l'essentiel c'est de former un point de vue qui soit en adéquation avec les lois et règlements de ce pays mais loolu dara li nga xam ni méngoowul ak sartu sartu réew mi am donc comme neexoon nga ñëwaat bu fekkee am nañu ñun duñu ay jinne duñu ay malaayka oui mais ñoom bu leen neexoon ñun ay sénégalais lañ ñu ñëw toog waxtaan défendre seen position seen position bu nit ñi assume ñu génn ci askan wi wax ni ñii lii lañ fi bëgg a décider mais nag d'accord ci. mais mais seen position. mais la politique de la chaise vide n'a jamais été une bonne politique en en en matière. mais seen position ça ça a toujours été tey cette question sur le troisième mandat. oui ils ont soutenu que il fallait que président de la République taxaw clairement wax ne que euh, du bokk ci élection yi pour que ñoom ñu mën a dem au moins. peut-être toog ak ñoom waaw xanaa président de la République du citoyen. naturellement du citoyen dafa am droit. am ay obligations. pourquoi ñun waxuñu ñun majorité ñu ne waa opposition ku ci nekk nañu wax ni kii dafay bokk ou bien kii du bokk kii day bokk kii du bokk nañ ko fàttali ñun ñoo tunk ci ay loi ak ay règlement yu wax ni bépp sénégalais bu ko neex mën na déposer ci candidature waaye mu war a respecter yenn règles yi yenn règles yi ñu cité ko nommément cité ko dañu ne règles yooyu nag kuy àttee kan moo méngoo ak sart yooyu conseil constitutionnel képp la point boobu posé nañu ko. point bu ñu demee dialogue politique point boobu opposition bi posé na ko wax li mu xalaat ñun majorité ñu wax lu ñu xalaat. mu nekk point de désaccord ci dialogue. du désaccord li ñu waxtaan ñoom dañoo wax seen position ñun tam ñu wax suñu position. ñu discuter discuter ba ñun ñun ñëpp ñu tënku ci ne waaye comme que mënuñu déggoo ci kan moo war a nekk candidat te ñu jàppoon nañu dialogue politique bi du moom mooy recevoir ay candidature candidature ci suñu constitution conseil constitutionnel rek moo koy recevoir moom mooy atte kan moo war a nekk candidat ak kan moo warul nekk candidat nañu fàttaliku 2012. Mhm. Youssou Ndour déposé woon na candidature am Youssou Ndour ku fi ëpp tur ci ci Sénégal ak ci àddina conseil constitutionnel jàpp ni dossier Youssou Ndour bi méngoowul ak suñu charte rejeté ko Youssou lu mu def impliqué wu dem defi ëllëg. muy Macky Sall mais monsieur le ministre déglu rek ëllëg ëllëg ëllëg ëllëg ëllëg dama lay séddale ëllëg Macky Sall tam ci même yooyu la. règlement yi non mais mënoo tënkale Macky Sall je veux dire kaawu président de la République parce que on parle pas de personne kaawu président de la République Macky Sall ak kaawu keneen beneen indi beneen. keneen lan mooy seen différence sa kaa wala sama kaa wala keneen. président de la République. il y a eu quand même euh, euh, euh, il y a eu quand même cette constitution qui limite le nombre de mandats à deux. waaw loolu xam nga loolu beneen débat la loolu tamit juriste yi loolu débat droit la. <laughs> juristes yi am na lu ñu ci wax ba pare ñun wax nañ suñu xalaat ci article bi ni ñu ko bindee dañoo jàpp ne article bi 27 dafa ne le mandat est de cinq ans. Mhm. et nul n'a le droit d'avoir deux mandats consécutifs deux mandats consécutifs dafay bañ def répétition mais c'est le mandat de